trois espoirs. ba léegi ah ñoo ngi fi nga xamante ni mooy euh, parcelle ah ngente Papis xariñ loon ndeysaan macha allah wax naa ko léegi sànq bi mooy jël saa Touba gis nañ fi ñoom euh, Serigne Cissé mu baax mi ñoom saa Touba ñoom maam na borom daaru ñoom ñëpp macha allah daal dañuy nuyu ma dañuy nuyu rek ki nga xamante ni mooy Serigne Cissé waxtaan ak moom nan la gisee tey li nga xamante ni mooy xew papis bi waaye du ñàkk nag mbokk yi combat Modou Lo Boy Niang dañ ko siy laaj waaye ki nga xamante ni mooy Sa Thiès ak Reug Reug yaakaar naa aussi tamit bëgg nañ si waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Serigne Cissé lu yàggu dara jëloon nañ ko waaye tey nag bëgg nañ seq ak moom waxtaan bu am am solo jamono ji côté musique bi sa ban camp la gën a feeñee sëñ Cissé mu baax mi maa ngi di la siyaara. ah Baye sama soppe maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaara di la jox cër di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla waaye di la siyaare ci barkeb ki ñu bokk muy sëriñ Babacar Si sëriñ kër mi tax nga sopp ma mi tax nga bëgg ma maa ngi lay nuyu ci ci ci ci soppe googa daal di la nuy ci baatu asalaamaaleykum di bëgg ci yow di kontaan ci yow. kontaan naa bu baax a baax tey ñu ñëw fekk la fi nga xamante ni mooy ngénte Papis Xarañ Lo mën nga wax. ay témoignage ay kaddu yi nga xamante ni xam nga ko si Papis Xaragne Lô li nga xamante ni internet yi xamuñu ko woon sa diggante Papis si lan la soxla. xam nga àdduna li ci ëpp solo Baye Serigne mooy ne nit day yaru nga ñeme ko mu yàq yar nga daw ko Papis nit ku yaru la gis nga nit man damay wax ne sama image bii Serigne Cissé dafa fonk image am boo amee nen noo mel ci àdduna ci lu yenuwul maanaam Serigne Cissé da lay daw waaye bu fekkee nag tegu nga ci diina am képp koo war a jox cër nga jox ko cër sëñ Cissé dina ñemee jaxasoo ak yow waaye bu fekkee amoo yar amoo teggin nag du ma ñemee jaxasoo yow Papis nag nit ku xale la bu am yar xale la bu am teggin euh, keppaar gi nga xam ne nag dañu fay dajee muy ci mbiru làmb saa war ma ju war ci sëriñ Cissé dina ko ko jox laaj bu mu ko war a laaj dina ko ko laaj ta laaj ba lépp teggin lay doon teggin jooje bi soxna si muccee it ni la ñu wooyee téléphone wax nu ko kon yoon def na ñu ñëw teewal ko te bu dul loola it ma bu dul doon jaxasoo gi jaxasoo it war na ma ñëwul ko ci bisam ndax la waral loola mooy ne euh, moom man bis yi dama koy xewle te bu ma xewlee bëgg naa nit ñi ñëwul ma sëriñ man Mansour borom daara ji nag daa waxoon ne nit ñi kenn moomul leen te boo ne faalewu kenn nag da nga jàpp ne yow kenn faalewul la ak koo mën a doon nag ci àdduna muy sëriñ Cissé ku mën a doon kon lii rek moo waral ñu daal di ñëw ci bis bi ànd ci yow comme nu bàyyi sëriñ ne ah Papis nit la li ma man li ko mën a sagalee bigalew mooy ma ànd ak caméra yi ànd ak sama jëmm dem jëlal ko bisam bi taaralal ko ko ak say caméraman yéen ñëpp lii rek ñu fi indi ñun lii rek ñu fi indi. teewaay teewaay maam Thierno borom daaru ak yeneen jëmm yi nga xamante ni ay yeneen autorités yi nga xam gis nañ leen fi tey ban jàng nga si def en tant que xale bu mel ni moom mu woote ñëpp dagg seen yitte ñëw rawatina a Thierno nga xamante ni gis maam Thierno moom moom mission la nekk di dox mission bi mu nekk nag mooy digganteem ak ndaw ñi maam Thierno képp kuy nit ku baax war nga ko ñaanal mu wér war nga koo ñaanal mu yegg ni aw yoon ndax maam Thierno bari na xale yu bëri lim sensé ci seen dund bari na gis nga bi mu ñëwee fi ak woyof ji ak dal gi ni xale yi xale yi bëgg ko jublu ko te lii la Sénégal soxla kon maam Thierno fekk bi ñu ko fekk muy sunu soppee nag di sunu xarit koo xam ne eh, daal danoo bëgg te jëm yàlla ji tax kon maam Thierno ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal aw fanam wéral ko ndax léegi dégg nga ci benn wax na ko sa taalibe yi mu ne ko samay mbokki taalibe loolu mooy modeste loolu gis nga ay mbiri bu ko kenn diisal diisut nit ki dafa am foo koy jiitoo ngeen ànd fa nga koy kondir maam Thierno noonu la mel maam Thierno nit ku baax la nit ku baax la maam Thierno ñoo diwul dara jëmale ci boppam maam no bu toogee li muy wax xale yi gëmal leen ne as gor day liggéey te boo liggéeyee la ca war mooy njëkkal ci sa wéyjur ya soog a ñëw ci Thierno te loolu mooy diina ji de ba ci tarixa bii ma bokk di tarixa Cheikh Seydi Hadj Malick kerek boo demoon ba war a jël tarixa bi dañ lay laaj sa wéy jur yi d'accord na kerek bu wéy jur yi d'accord nañ jox la tarixa bi ñu d'accordul kenn du la ko jox kon lii mu def nii rek la war a def Baye Baye Sëriñ maam Thierno daal ne ko ñëpp ñaanal maam no yàlla na yàlla guddal aw fanam yàlla na yàlla def ko mag ta barkeel ko euh, liggéey bi mu am si yoonu maamam yi yàlla na ko yàlla dimbale ba lépp yegg maam Thierno daal mention spéciale moom mention spéciale maam Thierno beneen affaire la Baye Sëriñ damay bég ci yow da nga di nit ku baax te sopp Serigne si te li tax nga sopp ma du lenn lu dul Serigne Babacar si sëñ Babacar rek nga ma soppee ñi ma bëgg ci réew mi it bëggee wuñ ma sama jëmm ji Serigne Babacar si lañ ma bëggee ndax euh, ndax daal gis nga mm, yëf yi bu sa loxo jotewul da ngay làqu ca ka loxoom jote man sama loxo jotewul loxo sëriñ Babacar si moo jote ma làqu ci ginnaawam ku ma sopp ci réew mi ak bitim réew sëñ Babacar la ma jàppee kon bu ko defee maam Thierno mi ñu fi dajeeg na mu représenté fi Touba ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal aw fanam dégg nga Papis nag lii lii lii lii soññ la ci moom ndax ab sëriñ nii la war a mel sëriñ ci yii lañ koy soxla bis jot sa sëriñ ñëw jëmmal bis ba taxawaay jot sa sëriñ ñëw taxawee bis ba maam Thierno lii mu def na ci sëriñ sépp roy dégg nga na ci sëriñ si roy kon bëgg nañu bàyyi sëriñ <laughs> waaw combat Sa Thiès Reug Reug yaakaar naa deux moo des ñoom ñaar ñaari xale yi jamono ñoo leen gisee xam nga keroog bi ma la waxee ne combat ba combat gàllaaj la seen premier seen jàkkaarloo TFM ba kenn ku ne gis nga lam teg te booba maa ngi la ko waxee woon defe naa ngétte Lamine Seck yàlla def seen jàkkaarloo kenn ku ne gis nga lam indi loola nag ma wax la ba léegi moo ca nekk waaye nag danga may fekk sama kër ndax mbir mi am na fu mu commencé leeree dara jëy sëriñ kër laa lay wax nii nii ji nii nii nii nii am na fu mu commencé leeree. am na ku commencé jékku am na ku commencé jékku bu baax sax. waa kër Xaadim Yàlla wala waa kër ma ne fekk ma sama kër rek bu ko defee mu gën a baax. mais mën loo booy ña ñoom ñaar yaakaar naa seen combat taxaw. waaw xam nga. kii yaakaar naa da nga ñaanal moom maa koy ngemb. combat boobu lama la ca waxoon. cumbukaay bi du ma xebal kenn maa ñëw taxaw ci digg bi di ko defal nañ ko war a defee. lamb ji lamb bi Modou Lo Boy Niang trois pièces bu mel nii laay sol wàcc ci géew bi du ma yeble benn butéel di ko koy jaxase maa ñëwal sama bopp. lu ma mosul def ma mosul def ndax bis bee toll noonu ndax samay kan laay dajeeg ma kanji kanji yi ñoo war a daje ndax def nañ ko assise du ma nangu ñu def ma ko man. doy nañ waar waaye xamante nañ ñun on se connaît xamante nañu. fu nekk lay dugg moog Tafa. waaw kanji dafa garaaw moog Tafa garaaw nañu waaye Cissé man bu ma jogee jógee ñëppay jóg waaw waaw waaw bu ma jógee ñëppay jog su may kàllanu waaye bis boobu ñoom ñoo ñooy tëdd rek ma def li ma war a def waaw maa gën a yëg Baye Serigne incha allah Baye si budal aw fanam dégg nga Papis nag lii lii lii lii soññ la ci moom ndax ab Serigne nii la war a mel Serigne ci yii lañ koy soxla bis jot sa Serigne ñëw jëmmal bis ba taxawaay jot sa Serigne ñëw taxawee bis ba maam Thierno lii mu def na ci Serigne sépp roy dégg nga na ci Serigne si roy kon bég nañu Baye Serigne waaw. yaakaar naa deux moo des ñoom ñaar ñaari xale yi jamono xam nga keroog bi ma la waxee ne combat ba combat gàllaaj la seen premier seen jàkkaarloo TFM ba kenn ku ne gis nga lam teg te booba maa ngi la ko waxee woon defe naa ngétte Lamine Seck yàlla def seen jàkkaarloo kenn ku ne gis nga lam indi loola nag ma wax la ba léegi moo ca nekk waaye nag da may fekk sama kër ndax mbir mi am na fu mu commencé leeree dara jëy Serigne kër laa lay wax. lamb ji nii nii nii nii am na fu mu commencé leeree. ku commencé jékku am na ku commencé jékku bu baax sax. waa kër Xaadim Diallo wala ma ne fekk ma sama kër rek bu ko defee mu gën a baax. mais Modou Lo Boy Niang ñoom ñaar tamit yaakaar naa seen combat waaw xam nga. kii yaakaar naa da nga ñaanal moom maa koy ngemb. combat boobu la ma la ca waxoon. cumbukaay bi du ma xebal kenn maay ñëw taxaw ci digg yow bi di ko defal nañ ko war a defee. lamb ji bi Modou Lo Boy Niang trois pièces bu mel nii laay sol wàcc ci géew bi du ma yeble benn butéel di ko koy jaxase maa ñëwal sama bopp. lu musul def lu ma musul ndax bis bee toll noonu ndax samay kal laay dajeeg ma kanji kanji yi ñoo war a daje ndax def nañ ko assise du ma nangu ñu def ma ko man. doy nañ waar waaye xamante nañ ñun on se connaît xamante nañu. fu nekk lay dugg moog tafa. waaw kanji dafa garaaw moog tafa garaaw nañu waaye Cissé man bu ma jogee jógee ñëppay jog waaw waaw waaw bu ma jógee ñëppay jog su may kal lanu waaye bis boobu ñoom ñoom ñooy tëdd rek ma def li ma war a def waaw maa gën a yëg Baye Serigne incha allah Baye Serigne jërëjëf.